represent Gambia and to represent home. Um, the 400 metre hurdles is definitely my main event. Uh, that's what I've always been selected to do, the 400 hurdles. But actually, next year I'm going to try and do the heptathlon. So for those of you who don't know what the heptathlon is, it's actually a combined event of seven events. Seven events actually, so you have to do the long jump, the high jump, the 100 hurdles, the shot put, the javelin, the 800 and the 100 meter hurdles. So all these events combined together make the heptathlon. So I did it before when I was really young and i decided that, you know, a little bit of a change to do something different. So I'll see how it goes. Um, I'm in Gambia till the middle of January. But while I'm here, I've been training, and it's really nice to be training in the sun because at the moment in England, it's really <laughs> cold. so everyone's running around with their hats and gloves, whereas I'm in my shorts and my crop top running. Um, the track is getting renovated at the moment, so I'm actually running on the beach and I'm with my cousin and he took me to the beach and we do loads of this stuff there it's really good like running on the beach because for the body, running on concrete sometimes it's too much impact, so you get a lot of injuries. Mm-hmm. Um, but on the sand, it's much harder working on the sand. So if you run, you know, 400 meters on the track, when you do 400 meters on sand, it's like you ran 800 meters. So if you want a good workout, go to the beach. You know, avoid the road. Um, so yeah, it's brilliant. Um, I'm looking forward to next season. Um, next year there's a few events coming up, but we have the African Championships and it's in Morocco. So I've been to Morocco, very nice. So inshallah, I'm I'm hope not wanting to say too much, but I'm hoping that I, I do really well. Um, I placed ninth at the last championships, so I'm definitely hoping to you know improve on that, whether it is the heptathlon or the 400 meter hurdles. But yeah, and, and you know, it's lovely with a new team. You know, I've got big up on my, my gig from Wallop because everybody, you know, I tried to say to everybody, you know, try and speak to me in Mantinko. Um, so the team's really good, the team's really mixed, so no, it's, it's great. I'm looking forward to, you know, definitely a few more years of doing this. 等一会儿， ah nañu pare di ko def ci le journal sport loolu dañ ko defee indiwaat parce que journal ñun bu nekkee xale ñun daan indiwaat because um, su ngoonaan dañ daan dem seetaan football boobu um, suñu am bi ñoo programme space yi nga xam ne ñoom la ñu war a euh, xool kon jàppale leen seen rôle modèle ñun gisatuñu ok not so much of the football because football yi ñu nag ci basket bi ak volley bi yooyu amatu so comme ni ma ko waxee su ñu waree five o'clock zone si dina kii off and this time nekk lu glamorous dañ dañ invite professionnels yi ñoom ci gàncax gi maa ngi gis yàlla dafa invite ñoom ñun ñëpp invite nañ leen pour ñu ñëw su ko pour ñu ñëw def football exhibition boo xam ne xale yi tam dinañ si royee mu nekk kuréel yi day wax bu ñu war a start ci 26 ca Banjul ministère yi ci formal yi of trade yi su fa jógee ci kool comme nañ ko daan def dañoo dem tennis loolu sérieusement il faut seetlu lu bëri dina la laal lu bëri njëriñ dina ji ci la ñu doon kuréel gi. volleyball volleyball waaw ñu am am volleyball am na seen place parce que journaliste la moom bàyyi la seen vol saa loolu ba ñu ciy sonn ñu plus la parce que xale yi fa nekk dañu mën a wane seen talent bu baax donc su volley bi rek ñu dem straight ci basket waaye win maa ngi wax ne ñun fay booy yus lu bees parce que tam Kanibal bi lu ko tax pour la liñ so talent siñ am tam dañ leen so musical break la am every half time bi dinañ koy bàyyi benn groupe waa groupe la wala musical waa mu ko fa ko bi ñu so ñun ñu ko def waaye ñun ci suñu star so foog naa ne loolu dina indi youngsters yi ba pare na créer benn travail su koy from the 26 ba topp ci la faam so boobu sport bi noonu laa tëdd donc su ñëwee si loolu nii as if boobu nag dañoo fekk rek lot ne bu di ëcc di président ñun ñëpp dinañ jóg jàpp ci government India were finding as rich people as second only 20 or only 34 fireworks dina am um fanal dina am ak fele ci July 22nd square so fireworks dina am ambiance bi dina fa nekk gaay ñu def fi dem ñu indi waat tay you know celebrate New Year's Eve with, with style then New Year's Day um okay 5 o'clock traditional um hunting boobu diggante Adina ak Fatima fële ca si nga xam ne moom loolu dama ne loolu naka laa ko naka laa ko mën a sax sax la biir baañ am ren loolu lu nit ñi tourist attraction la sax laa ko mën a parce que loo xam ne sax every year so ñun ñëpp ñoo bokk bañ bi so dañoo supportante ñoo supportante ci bopp so léegi suñ demee foofu ah, am nañ am na ñuy initié sax carnival bi lépp parce que ñu mën dellusi li ma gën a stop mooy ñoom seen programme dafa successful da nga xam ne nit ñi xëjatuñ fi you know nit ñi xëjatuñ fi jar su ma waxoon su ma li ma daan bëgg a gis li ma bëgg a seetaan du ma ko dee mën a enjoy parce que place bi dafa àgg. waaye loolu yëpp seen succès la. ñoom ñoo créé environnement bi beneen bi. so ñun dañoo ñëw not direct competition. but creating opportunity. ba nga xam ne dinañ joxe. leneen lu nekkul fi jaral su fekkee ne dem nga foofu a ne mënuloo faa taxaw liyatu te am nga alternative Simba mu ngi Moscou an boobu tradition la montor ko benn lu fi géej la woon te xam nañ ne gars yi mama nañ indiwaat nañ ko Moscou Ah, su suñ ci jógee nag si guddi gi su ëllëgee mbaa ma ne ñoom ñëpp ñëw Moscou ñoom seen bopp dinañ ñëw support parce que ñun dinañ dem fekk li dina waaye ñooñu dafa naa dinañ euh, moom Banjul la waaw foo mën a dem Banjul ambiance la parce que ñun modèle boobu réeré wala mbir na loolu ñun biñ ko scoré ci euh, Caribbean Carnival bi nga ci lañ ko indi ñun ñu gis ci suñu bopp euh, pourtant a créer a ngeen kan lool ba nga xam ne bu nature ñun bi success ne waaye ñun suñu bopp ñun daan gën a xaar daan politique yow ba bi nga xam ne moo dem ci Gambie ci diaspora bi bon foofu la nekk dam si kaw caméra yi bi lot bu nature ñëw soo léegi loolu successful la ba nga xam ne économiquement sax benn yu Gambie fii gars yi seen bénéfice parce que gars yi dañ koy jënd si jënd si yére pour pour yaa ngi yëpp soo loolu teel aussi ñëpp ñu ngi cee bénéfice ñeneen ñeneen airline yi tam di seen prix su ñëwee London moom moo les di seen business yi si Gambie ñu ngi seen yàlla yëpp dafa taxaw dafa dox yooyu si luñ taxawal la fas yéene indi Gambia te def nañ door nañ ko ba pare ci bismillah ñaan nañ yàlla dimbali ñu àndal ko ci alhamdulilah programme si amul bi parce que nee ne nañ célébrer so bu ne ñu Tuesday uh, sorry only second mën xam ne bii gars yi bi following day nga xam ne moom la ñi nga xam ne amul woon opportunité pour enjoy uh, uh, continue Muslim society dañoo plié muy Kumba Ba Odile ñu dellusiwaat ñu enjoy ko ci euh, nekk à l'aise ak yëpp daal su ko waxee programme bi ñu la kii te xam naa ne